bismillahi audu billahi min alsheytaani irajim bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli barke borom tuuba mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamualeykum wa taala wa barakaatu ñoo ngi leen di nuyu di leen nuyu nuyoo bi gën a war ci ab jullit ak ay mbokki jullitam di leen siyaar siyaar bi gën a jaadu ci ab taalibe ak ay mbokki taalibeem seen mbokkum taalibe muy wax sëriñ Assane jaw mooy bëgg a laayanteeg yéen biir ci njariñ lu rëy loo xam ne dañ koy def ci laylatul qadar muy ñaari rakka yooyu julli ci guddi laylatul qadar ñaari rakka yooyu julli ci guddi laylatul qadar yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ci njariñ yu bari yoo xam ne ku góor góorgóorlu ba def ko sa adduna ak sa àllaaxira lépp baax na yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa waxoon ni ad diinu nasiha diine moy layenté bir kon nak dañu bëgg layenté ak yeen bir ba waxtaan ak yeen ci ñaar rakka yooyu ngeen déglu ko bu baax teewlu ko te kenn ku nekk fas ko def yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu Abdullah wax ibnu abbas radiyallahu taala anhu mo wax ni yonent bi alayhi salaatu wassalam wax na ni bu guddig laylatul qadr ñewé képp ko xamné ne julli nga ci ñaari rakka rakka bu njëkk bi bu mujj bi yëpp ñoo bokk noo koy defee rakka bu njëkk bi nga jàng fatiha ak qul huwallahu ahad juróom ñaari yoon rakka ñaareel nga jël fatiha benn yoon qul huwallahu ahad juróom ñaari yoon ñaari rakka yi daal di njàng mi daal di mën nga sëggru koo daal di sujjóot daal di taaya daal di wax boo sëlmalee nag nga sikkar Lima may bëgg wax juroom ñaar fukki yoon li ngay sikkar juroom ñaar fukki yoon moy astaghfirullah wa atubu ilayhi Astaghfirullah wa atubu ilayhi Astaghfirullah wa atubu ilayhi nga def ko juroom ñaar fukki yoon ganna bi nga sëlmalee ci ñaar raakaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na ni euh, ibnu abulai ibnu abbas radiyallahu anhuma neena na bi ali salaatu wasalaam nee na képp koo def nga ñaar rakkaay yi balaa ngaa jóge fi nga ko doon defee fi nga sukkoon doon ko def bala nga faa jóge yàlla jéggal na la jéggal sa ndey jéggal sa baay bala ngay jóge fi nga ko doon defee te nee na itam yàlla dana yabal ay malaaka ci sa kër àjjana yam la tabaxal yabal leen ci kër ya ñu lay jëmbatal ay garab di ko roose ca kër ya ak ca bunti kër ya ak di la fottarñil sa ñeenti tiwoo yi nga xam ni ci la ndox mi ngay naan boo nekkee ci biir àjjana te àjjana ñeenti tiwoo moo fay daw benn bi ndox lay xelli muy ndoxum kaw kawsara beneen bi meew lay xelli beneen bi sàngara lay xelli beneen bi lem lay xelli sa ñeenti tiwoo yooyu nag mu yebal ay malaayika ñu dem ci biir àjjana di la ko fotternil pour dara bañ ko fat loolu ku ko def da nga ci am loolu wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.